biñu ñu ci veille euh, le lendemain muy le lundi 8 mai mu doonoon procès en appel ci bir lolu ay avocats téw teew nañu yow bi nga xamé ni da nga def désobéissance civique dootoo collaborer ak justice sénégalais avocat yoy yow ya len jël yow ya len di fay lu tax ngay nangou say avocat di dem ne leen hey man dootuma wuy justice arrêté len liguey bi dootu len fay wala da nga len di euh, désobéissance ba da nga continuer len fay sa bop ngay nax naxoo sénégalais Bon ba ce discours bi nga defoon Kër Maodo si sa point de presse da nga ne may ñu la temps sax nga dugal appel lu tax waxoo say militant que yow jox nga maître Ngom mu dugalal la appel parce que yow première atte bi sax d' ci deux mois yi ñu la tëjoon suuf si yow nee nga d' ci deux cent millions yi d' accord ci kon da nga bëggoon ñu attewaat la yow yaa ko jox possibilité boobu say avocat ndaxte say avocat amuñu sañ-sañ di appel sans sa accord loolu aussi waroon nga ko wax say militant Pastef ñun soxlawuñu xam mais say militant xam mais yaa ngi nëbb say militant yaa ngi nëbb say militant la ngay négocier ce souffle. donc ces militants, ils respectent wu loo leen yow say militants joxoo leen Nous, comme dañ la top, nous xamoo lu xamuñu lu ñu topp la moo tax nga naagu ba nga lu la le Sénégal appartient à 17 millions 783 295 habitants et non pas à une seule personne qui s'appelle Ousmane Sonko qui est leader du PASTEF le il y a beaucoup de cadres le cadre laa naw biir PASTEF ko xamanteni bima suivre discussion ak dialogue pourquoi dama né pourquoi jëluñu ki djitul ko Pastef muy Moussa Balla Fofana après élection municipale dam ko sétane émission ak Papa Ngandjay Ndiaye temps yi ma seetaan ko émission ak Sénégal 7 c'est un c'est une personne responsable une personne mature une personne intellectuelle une personne bo xamanteni il a pleine d'argument dans sa tête kooku su waxee rek nga daanu mané ne mais kii lu muy xolé ba nga xamné dañuy jital Ousmane Sonko Pastef ñu tek ko fi koku mom franchement parler dama ko naw musul woté à la violence musul woté à la résistance il nous donne des euh, propos yo xamanteni kep képp ku ko jàng nga xoolaat ko di nga né propos bi kat su ko toppee Sénégal dina jëm kanam soko topul sax pour Sénégal yow soko ko déglulee sa bop nga jëm ci góorgóorlu da ngay avancer donc je crois que yow yow ya dougal appel yeen ñep gën dougal appel nga dem ñu daan la 6 mois avec sursis ba noppi tegal la ci 200 millions yi ñu confirmer ko bi lolu amé ci ngoon si ñu gis ki nga xamanteni moy leaderu leaderu maire de Dakar di Barthélémy Diaz momit def ben point de presse jàkkaarloog journaliste yi ñi nenañu daf ko enregistré xaar ba après procès bi mu diffuser ko lolu mom la engagé su ko nexé mu enregistrer xol heure bu ko nex mu diffuser parce que man mi damay enregistré émission ma 16 h la koy diffusé événement am wala dara am ma ni que concentré wu ma dama koy ba événement c'est dans la logique parce que li ngay wax da nga bëgg mo egg ci askan bi so bëggoon egg ci askan bi yow yaay wax ak sa bop kon je crois que presse des journalistes yu koy wax ak yenn militant askan bi yu koy wax je crois que dañoo comprendre ci biir des mu def ay révélation mu assumer ay propos xamal ni la que yow mi mom ngay waxal wax ak Macky Sall la concerné li wax Ousmane Sonko Ousmane Sonko la concerné muy benn point boo xamante ni Barth daf la fa daan ci communication parce que jàngal na la que nettali Nid nit du nettali Aline Mbaye Nder woyoon na ko fi bàyyi leen di nettali bàyyi di nettali voilà te yéen a séqoon coalition boobu di yeewi askan bi ci bir loolu mu ay révélation xamal ni que ngeen di wax ni que dialogue bi ci suba yow ya ci d'accord, d'accord Khalifa Sall mo ci Vous d'accord lu tax nga d'accord ak Barthélémy Dias ci vous nga bëgg ci kaw nga ne donc ya ngi nax say militant yow lan mo la intéressé xol naka ngay négocier té kenn du ko kenn kenn jamais de la vie je considère que leader politique da am bamelu bir parce que lu ñuy dox on le fait pour le Sénégal. C'est important. C'est important tout de même. Parce que tey les bonnes volontés nous devons a dox ay pour que le président Macky Sall nangu ak d'abord pour le forum mondial nous nangu xam lu tax ma bëggoon mu ñëw toog forum bi ko président bëgg est-ce que man mën l'engagement jël que le dialogue sera sincère. cher leader de tu es en politique Nous fi def dara te du feeñ. Je vous amé mu ay révélation yu bari mu wax en tant que responsable parce que xam Barthélémy Diaz xamna politique lañ Jean Paul Diaz di sa ni politique li Barthélémy Diaz politique Ousmane Sonko ko ci politique en 2007 bañuy japp Diaz ci audio Wade Ousmane Sonko mu prison six jours de garde à vie, nga ñam section de recherche bi nga génnee da nga leen tàgg parce que dañ la très bien Barthélémy Diaz bi muy dégg maire c'était en 2009 Barthélémy Diaz bi muy déggat maire en 2014 boobu Ousmane Sonko kenn xamula tu passé dans l'anonymat boobu man Tange Tandian maa la gën lan la sénégalais yi gënoon xam kon donc Barthélémy Diaz bi muy dégg député yow déggagoo député Barthélémy Diaz ba muy dégg maire déggagoo maire kon yaakaar naa ni kooku tey moo la sut ci politique la def parti socialiste je crois que c'est quelqu'un qui a toujours défendu les intérêts du Sénégal malgré Tangam, malgré am mais c'est quelqu'un qui respecte les institutions de son pays On n'a jamais vu Barthélémy Diaz insulter les institutions de son pays. On n'a jamais vu Barthélémy Diaz manquer de respect à son chef de l'État. Malgré Barthélémy Diaz, Macky Sall Beaucoup de vision, beaucoup de position te teewul qui Barthélemy Macky Sall donc lolu politique lolu démocratie lolu liberté d'expression mën nga yor sa dom mu gëm yow nga gëm li dox objectif mais yow leaderu Pastef yow yaay kenn ko xamanteni yow ya xam lepp yow ya man lepp yow ya xam lu bax ku yow ku ak yow ku bon la désabonnez-vous ngeen wara que sen xel rew du lolu yor bi Barthélémy Dias waxé génnee ay révélation tonto ki nga xamanténi moy Ousmane Sonko comme mom ay saga kat la formé comme mom ay ño xamanténi dañu ñak yar amuñu benn yar ci réseaux sociaux parce que dem nako ba bakoko né réseaux sociaux yalla dogal na amnañ fa doolé bobu batay saga lañ fi nekké xaste di wax yak ay doomu adama lolu la formé donc mu bëgg utiliser lolu pour yëkëti ko gaay yi commence naan dañu désabonné wu ci compte Barthélémy Dias kon donc seen yeewi askan bi ngeen tegoon coalition boobu bugan Gueye dañuy yeey na leen ba mu ñëwee di bokk dafa signé sous réserve yéen ñëpp ngeen wax ko mun leen lii gëmuma ko parce que àndu naa fekk la et puis c'est àndu naa fekk la parce que moom bi mu génnee parce que nit sooy woote waxtaan dañuy def coalition balaa ngay woote leader yi dangeen war a toog ba pare ngeen waxtaan nga ne ah, coalition bi kat bëgg nañ ko tuddee lii Bougane indi xalaatam yow leaderu Pastef ngeen sa xalaat Khalifa indi xalaatam Aïda Mbodj indi xalaatam Habib Sy indi xalaatam Déthié Fall indi xalaatam mais yéen tënk ngeen li ngeen di tënk complot ngeen li ngeen di complot comme ni nga koy waxee saa su ne lu am nga ne complot la xam nga nit ki loo xam rek moom ngay wax ndaxte ci complot ngeen di def ba tànn seen tur ba tànn kulleeru yeewi askan bi nu muy mel ngeen bëgg a woo Bougane mais Bougane il est jeune comme vous Bougane ba muy liggéey di am ay entreprise am di servir Sénégal yow boobu yaa ngi inspe impôt et euh, domaine weer bu dee nga dem tàllal ñu fay la salaire boobu buggaan mi ngi fay ay salaire kon donc du ngeen benn mu génn tey yeey na leen mooy ni ma leen koy waxee rek dëgg rek koy mujj lépp lu ñu lal si lu safaanoog dëgg tôt tard dëgg dafay feeñ te dëgg ji feeñ na bi ma dégloo Barthélemy Dias ci discours am dama ne tey Barthélemy Dias yey na ma man Tange Tandian la ma doon wax journal People yëpp tey Barthélemy Dias mi ngi koy confirmer manipulation ba ma doon wax ci leaderu Pastef Barthélemy Dias mi ngi koy confirmer ñàkk respecté Sénégalais yi mi ngi koy confirmer te fi mu ko njëkk a confirmer ak wane autoritaire am ci législative yi yéen ñëpp seetaan ngeen discours am bi ñu ne liste nationale Yewwi Askan bi baaxul dafa def déclaration mang ma fekk Paris maa ngi toogee ni ma ne xool leen kii ni muy waxee naan Barthélémy Dias du leader dama woo Khalifa Sall def ko haut-parleur ma ne ko dindil kii euh, ñaari góor nga dugal ñaari jigéen pour euh, ñu respecter parité bi voilà parce que man maa ko wax Ousmane man maa ko wax Khalifa Sall Khalifa Sall man na la bàyyi Khalifa Sall mën na la bàyyi te moom mu jox la cër yow comprendre loolu nga indi autoritaire indi dictature ci kaw nit ñi cette dictature là cher leader du PASTEF ça ne marchera pas au Sénégal le Sénégal ne t'appartient pas Mimi Touré wax na la ko digga politique ba jeexal bàyyi fi Sénégal kon donc génneel loolu sa xel nga ressaisir wu gis nga nit ki li nga leble rek mom lañ lay fay li nga leble rek moom ngay fay tere mu të tere mu të di nga wéet fenn mat sa baaraam di ay nit fekk yow ko sa bopp diffamation lañ la jàppee jàppewu ñu la dara lu jëm ci politique nit nga diffamé moi la porter plainte va répondre et arrête de parler Macky Sall il faut que tu sors Macky Sall de ta bouche il ne t'a jamais répondu parce que du sa nawle bokku leen catégorie xam nga nit di nga bokk ak nit école te da ngeen bokk classe moom dangeen bokkul sax école da ngeen bokkul sax école école ba mu nekk ak yow école bi nga nekk dafa bokkul Macky Sall dafa nekk université yow nga nekk jardin d'enfants kon kooku mënu la bàyyi xel il faut que nga xamaat loolu say militants yi la topp ñenn ñu intelligent yi réfléchir commencé nañu beddeeku ndànk di jël seen yoon toppatuñu la te xam nga ci dara noo ci xamee dara bi verdict bi génnee foogoon nga ni xew mars 2021 mooy am gisoo ci dara motax ba nga xeye di def sa point lan nga ñëk def xass say militant xas weesuwul ngay wax dara waxo goko nga ne bëgguma ngeen gisee ni ko ay xass la yow ya ko wax waxuma ko bëgguma nga gisee ay xass la wala dama nangam sangam dama ni da nga leen xass indirectement dàqum ginaar waxale sa soxla la gis nga fi Thione sec way na fi numéro 10 way ko Abdou Diouf ba mu jéxal te tudduwul turam te Sénégal yëpp xam nañu Abdou Diouf lay wayal donc so taxawé nga ne benn leader te wo turam Barthélémy Dias day libéré waa Yewwi Askan Wi xamal ne que moom mii ngay waxal mu jël ay responsabilités te tontu la te xam nga ni Barth xam nga Barth xam li nga loo bëgg ci wax moo la daax ko wax soo waxoon mille mu waxal la deux mille bañ mu juddoo ba tey ci loolu lañ ko xam balaa ñu lay xam ci loolu xëy na nag am na ci rek respect moo tax mayu la dara Barthélémy Dias du Macky Sall te xam nga ci dara xam nga ci dara bu baax a baax